salaamaaleykum mbooloo mi xam naa yéen ñi teew fii ñëpp conférence moo leen fi indi mais man conférence si jiwuma fi dafa am ku ñu sampoon 2014 kooku laa bëgg ñëwaat tey mu nekk l'acte deux bi ñu koy sampaat pour mu tegal ñu système boo xam ne mooy transformer définitivement le Sénégal te mooy le président Ousmane Sonko sama gars yi bis bi ñu woté woté wuñ ko ndax lo wax dafa am fu ñu jugee c'est pas pour rien que Pastef ak li mu ëmb ci ay instances ak li mu ëmb ci ay structures premier rendez-vous politique bu parti bi am muy rendez-vous politique majeur mu def ko avec la jeunesse patriotique du Sénégal où sont les jeunes patriotes ani waa Dakar ani waa Pikine ani waa Guédiawaye ani waa Rufisque ani waa Touba ani waa Touba merci ani waa Ziguinchor merci li ñu bëgg nag mooy tey baal ma baal leen ma mënu ma lim département yëpp baal ma baal ma baal ma

depuis 2005, nous avons ba mouvement des jeunes moo lu le président Ousmane Sonko dama bëgg ngeen l'ancien bel dirigé par Ibrahima Thiam et Babacar Ndiaye. cette belle équipe a fait un travail exceptionnel en quoi faisant en constituant la JPS en 2017 en quoi faisant en assurant un maillage territorial de la JPS partout dans les départements fu ngeen dem ñi ce sont les jeunes patriotes xeexuma un pays, je jigéen ñi xeexuma ñëpp nag kon nag il est temps ñu xam où lañ jugee ak où lañ jëm bi dénk le 5 juillet 2023 dafa amoon un contexte bi ñu ñëwee am na ay programme yu déroulé ñëpp xam nañ ne dafa am le président Ousmane Sonko waxoon en mars 2021 à cette jeunesse je rappelle ce qui nous lie. Parce que tout le monde sait que nous avons un lien particulier avec la jeunesse. ce lien particulier nous nga la jeunesse nous préserver est-ce que vous êtes prêts à signer ce pacte aujourd'hui est-ce que vous êtes prêts à signer ce pacte aujourd'hui lien particulier pour vous. dafa am ñaari volet à vie ce lien particulier nag dafa am ñaari volet dafa am ay droit am ay obligation ñun jeunesse bi présent ndaw ñi teew fii li tax ñu topp la mu jaral leen seen bakkan mu jaral leen seen liberté mu jaral leen bàyyi seen njaboot génn réew mi

tagat nak moy formation professionnelle adéquate bo xamné ne képp ku teew fi tay di nga gis sa bopp ci nguuru président Bassirou Tamay Fay premier ministre Ousmane Sonko li ci dess moy l'emploi et l'insertion moy ndaw ñi li ñu bëgg moy ku né boo xëyee am loo suturlu yóbbu sa njaboot suma waxé droit yi nak ñu bëri dañuy fogné dama ñëw pour ne président Ousmane Sonko dafa wara def loolu xamna ni da koy def mais si rappelé loolu mooy ñun dit ñi nous avons le que bal avons droit devoir est-ce que vous avez accompli votre devoir dans le projet non non non non nous avons accompli une partie de notre devoir mais il reste une autre partie c'est de protéger ce projet Gaï. gagne bépp réew boo xam dafa am fu cycle bu koy ñu am système bu bu mbir yi dañuy rek pouvoir renvoyer un message au monde entier à tous les pays du monde à tous les citoyens sénégalais fu ñu nekk ku ak cette force populaire qui avait protégé le projet en 2021, en 2022 et en 2023, elle continuera à accompagner ce régime jusqu'à l'atteinte des objectifs et des résultats fixés. Lolo du caaxaan dëpp dëkk boo xam régime bi fa nek bëgg-bëggam lu mu rafet rafet su fekkente ne amul assise populaire derrière ce régime ku jug mën ngaa faagaagal régime boobu est-ce que di ngeen seetaan ñu faagaagal le président Ousmane Sonko man de duma ko seetaan kon nak loolu moy taxaway bi lepp lu état bi di def ñu jàpp ne ñun la koy defal ñu nekk au cœur de l'action étatique président ñun yow nañu déglu fo joxoñ fofu lañuy ñuy jublu ñu keneen yow rek rek rek rek lañuy top kon nañu nekk attentif aux actions de l'état nañu nekk nous nga à la base auprès des populations lu état du sumb ci action citoyenne Nous sommes au cœur de quoi que ce soit Nous a xaar poste une responsabilité lenn de ñu ñor est le bien de ce pays parce que nous train de et c'est ça le pacte que nous avons lié avec le président Ousmane Sonko